ku seddu gëmm xam nga ki seddu gëm dootul poser problème keneen ndax def na choix la mu ne mu nga ca mu mel ni ba jullit ya séddoo seen yàlla ak seen diine gëmm ci wàllu charq les matérialistes séddoo seen tabia ah gëmm problème amul woon booba temps kenn ku ne ci ñoom kullun yaamalu ala shakilati wa kullu xisbin bi ma ladayhim farixuun mais li tax sous développement am lan la mooy dañu toog toog ba ci yàgg rek ña gëmmoon xippi orient xippi xool yiw gi ci diine xelam toxu xolam des matérialisme gi mu toxu ndax it xippi xel toxu ndax progrès à confort bi ñu Occident seen xol des ci diine seen xel toxu nit nag bis bu xolam nekkee fii xelam nekk fële tees dafay wëndeelu rekk waaye dootul dootul takk fenn mu mel ni sous développement bi ñuy wax yépp nag du dara lii la mooy Occident tagatul fenn boroom diine yi tagatuñu fenn ndax kii xolam a ngi ci diine mais xelam a nga ci matériel ñi nekk ci matérialisme it seen xolan ca matériel waaye seen seen xel mu ngi ci yiwu diine looloo tax nga gis tey jii borom xam-xam yu bari yu nekkoon ci mu gëmuñu lu yooyu idéologie xëy xëy tey kenn ku ci ne bàyyi fa la nga gëmoon ñëw jëm si ci diine nga gis itam ña nekkoon ci diine ñoom itam commencé

kalanena nee na ma tey parce que ñenti adama la yalla waaj pour ñu ñew ci aduna ñu bëgg ngeen seet xam li xew du nit yàlla évolution bi tubaab yi tudd la ñu yégal ni yàllaa koy doxal mais ñoom doxaluwuñu ko yàlla bind aadama bu jëkk aadama boobu pour ñëw jur nit ñi rekk ko fi indi woon la procuration hmm? procura procréation kon astaghfirullah fexe ba nit ñi multiplier wu àdduna bi bari nit loolu rekk moo ko fi indi mu initié lépp ba mu fa jógee deuxième Adam mooy Noox créer deuxième monde deuxième monde boobu nag ci la profet yëpp commencé kenn ku ne di ca contribuer di ci contribuer ba ñëw ci Muhammad mu nekk troisième Adam quatrième Adam parce que yi ma leen doon wax sànq yëpp ay ñeenti ñeent la quatrième Adam nag mooy war a ñëwaat moo tax ñu tudd al imaamul mahdi maa ngi ñëw de al ahd al awwal la ilaha illa allah al ahd al te mooy aadama bu jëkk ba ah yàlla sedd ko boppam moo tax mu génn rek mu yóbbu aljanna la fa xew yépp xew fa diggante aadama ak iblis ba mu xëy wàcce leen pour expérience boobu ñu ñëw dund ko ci suuf yàlla jël booba expérience su ñaareel ba mooy diggante fi noox ñëwee ba fi yonent bi ñëwee mu sédd ko ruux bi yonent bi ñëwee nag ba installé loolu ba ba dem trois siècles après da leer yàlla folli ruux fal màdd folli esprit fal moo tax fim ruux ñëw ñu naan ruux yonent yi di ñëw yonent yi di ñëw ba mu xëy dagg yonent yi naka la yonent toog ñëwatul rek ruux échec ñu war a tirer les conclusions ci échec yi ruux def def def yan la mu fal matière matière a ngi commencé di échec di échec di échec léegi ñu folli ko léegi nag mu tirer conclusion ci njuumte aadam ak ci njuumte iblis njuumte aadama wàll ruux njumte iblis wal badda legi nak yàlla bëgg rectifier njumte njumte yépp ci al ahdul axir moo tax mu indi al yawmul mawud le jour J le jour J al yawmul mawud dana ñëw gis nga bu boba xam nga luy xew nan jullit yi dafa am jullit yi duñu amati pap ay pap ak ay khalifa ak yii du am alquran la yàllay jël doo du ko def aaya yi baat mais aaya yi leer la koy def rek def ko réalité lu yàlla masa santaane ci alquran dana wëlbatiku nekk réalité ci dund ba nit ñi dootuñu ci mën a génn lu yàlla masa tere ci alquran yàlla dina ko def leer ñu ràbb ko ci réalité yi